bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lanaa illaa maa callamtanaa innaka anta alcalimu alxakim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 cant ba amut app donte lott nañ di ko sant ak màggaayam na mu toll waaye ñu di ko ñaan moom mi ñu may fanaanug jàmm yal nañu yàlla may kendaluk jàmm amin yaa rabbal alamin mbokk yi naa ngi fàttaliku keroog bañ doon taxaw ak ci waxtaan ba waxtaan ci àqu doom ci wuyjur tey ñu fas andi beneen buntu mooy min xuququl abna eh, alal aba aqu doom ci wiyjur ci paaraay aq ba doom bi yore paaraam bi tey incha allah buntu bañ leen dégtal nii lañ fas yéene wéttalante ki ñaan buur bi yàlla tabaraka wa taala yal ñu ko yàlla yombalal ñu mën koo faram fàcce comme na mu nekke amin ya rabbal alamin di leen fàttali ne rek ba léegi ñu ngi ci vacances vacance bi nga xamante ni ca la yi di noppale ko waaye noppale ko bi nag nañ leen xañ la nga xamante ne mooy lépp li leen di disorienté ci xam-xam ba leen di njëriñ di leen géema orienté ci la nga xamante ne mooy internet ba ñu nekk di dund ci suñu jamono ji xarale yu bees yi lembi àddina ci anam bi nga xamante ne kenn xamut nu mu doon waaye nag Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji ci waxtu wi ñun ñu opté tànnal leen njëriñ bi nga xamante ne moom la doom di war a njëriñu ci àq ba mu yoreel wuy juram waaye wuyjur bi tamit mu mën si war a mën a xàmmee ana wan ak yore la nga xamante ne mooy doomam kon ñun ñëpp ñu bokk xerewlu déglu la suñu borom bi subhaanahu wa baaxe baaxee askani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbaaxam ak cofeel bu mu am ci xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñu demee xool ca suratu tahrim dinañ fa gis buur yàlla tabaraka wa taala mu di ñu wax ne yaa ayyuha alladina aamanu wa ahlikum naara wa quuduha annaasu walxijaara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته walmaratu raaciyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an raciyatiha muttafaqun caleyh wa qaala nabiyu sala allahu alayhi wasallam maa min cabdin yastarcihi llaahu raciyatan yamuutu yowman yamuut wa huwa gaachun li riayatihi illaa xarama allahu alayhi aljanna muslim mbokk ñu sant buur bi yàlla tabaraka wa taala juldi si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jël suñu mbind bu njëkk tey jëmale ko ci la yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam doon baaxee la nga xamante ne mooy na julit bi wara a comporté bako avertissement ba buur yàlla tabaraka wa taala yeddaange ba ko buuru yàlla tabaraka wa yedd fii ci dundu àddina ba mu nekk di dundu laata keroog bés penc xew-xew bu mag ba xew diggante baay ak doomam diggante kañu sàmmaloo ak ki ñu war a sàmm ndax xew-xew boobu ci bés boobu bu ñu ko buur yàlla waxutoon amul kenn ku koy mën a imaginer di ñu ko wax comme na ko buur yàlla leerale ci téere bi ba tax na aqu doom ci wuyjur moo tax buur yàlla tabaraka wa taala daal di avertir mbooleem wuyjur yi yow mi buggut sa doom nekk di nangu alali nit ñi gannaaw bu mu leen tiitalee ak ngànnaay yamu yore ak nu munti mel ci ay xeetu ngànnaay kon nang ñu may nopp ci Rewmi FM waxtaanu fajar bay jaar fi ñu am lu ñu waxtaan ak yow su ko defee nga taxawee ko ci njaboot yow mi nga xamante ne bugguloo sa doom nekk anam joo xamante ne day génn ci ngoon mu paase guddi bi yépp ci àll bi bu ñëwee suba mu yendoog nelaw joxla la benn enveloppe te xamuloo fu mu te wóor na la ne waxut la la muy liggéey keroog bés pénc lala buur yàlla di moytandikuloo nañ leen ko waxtaanee ñu gën a xool suñu taxawaay ci njaboot mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot mu ngi demee xool ci suratu tahrim ci juróom benneelu aaya bi buuru yàlla tabaaraka wa mu ñuy baaxee mu ne ñu yaa ayyuha alladina e yéen ñu gëm yàlla wéetal yàlla ni yàlla moo fi nekk di yàlla bookaalewu leen dara amul dara la ngeen ki yàlla seeni kàddu amul benn kàddu bokkaale yafay feeñ seen melokaan amul dara ci xeetu bokkaale lay feeñ ci seni melokaan seeni doxalin seen anam bi yépp wéetal yàlla mooy lay gën a fés yen ñi mel melokaan wi yal na yàlla di woo mooy ku góor mooy ku jigéen yàlla nañu yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gom yàlla yan laa bëgg a waxal de allahu akbar kon na ñépp daw dem ci audience boobu ci ndaje boobu séminaire bu mag la buur yàlla woote te woy gom yàlla ñi ñoo war dem wuyo waaw yàlla ñi jël nañu avion ñëw nañu ñi jël nañu oto ñëw nañu ñi jël nañu bato ñi dox nañu seeni tànk waaye wayu gëm yàlla yi ñëw nañu wuyu si yàlla tabaraka wa taala daal wax yonent bi ne ko waxal sama jaam yi gëm ne man may seeni borom nañu déglu la ma leen bëgg jox comme message te nga war leen kaa jottali pour yàlla nañu quu anfusakum wa ahlikum naaro ngalla waay na ngeen feg seeni bopp nangeen ngeen fegal seen bopp na ngeen géema muytandikul seeni bopp na ngeen sorel seen bopp ak seeni njaboot na ngeen fegal seen bopp ak seen njaboot lan lañuy sorel suñu bopp ak suñu njaboot ana lan la yàlla wax ne nañ leen ko moytandikul suñu bopp ak suñu njaboot ki bugg a xam la yàlla ne na ngeen moytu ak seeni njaboot loolu yàlla bugg a ñoo wax ne ñu moytu ko mooy lan ki ko bugg a xam mais ñu nopp ci réew mi fm 97.5 ci waxtaanu fajar ci waxtu wi buur yàlla ne ñu qu anfusakum wa ahlikum naaro na ngeen muytandiku bopp nangeen fegal seen bopp ak seeni njaboot safara safara la yàlla tudd fu fii safara na ngeen ak seeni njaboot safara safara soo xamante ne melokaanam kenn mënu koo xam ku dul ko bind la koy kenn xamut la koy taal lu dul ki ko bind moo tax yàlla ñenu وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة buur yàlla ne ñu la koy xamb ñaar la nit ak xeer nit ak xeer ñooy doon mattum safara suuf safara su yàlla wax ne na ngeen ko moytandikul seeni bopp ngeen moytandikul ko seeni njaboot la koy xamb ko taal mooy nit doomu aadama ak xeer doomu aadama ak jëmmam ju tuuti si jëmmam bu tuuti wii xeeru montagne yi nañu ne coow ci kaw ak seeni dayoo ak seeni melokaan bu dee yàlla nee nañu ñaari mbindaafoo ni ñooy lay xamb safara su jahannam kon muy tëndiku muy tëndiku jot na moytandiku jot na yàlla moo ne ñu yéen ñi gëm yàlla na ngeen moytandiku seeni bopp nangeen fegal seen bopp ngeen fegal seeni njaboot safara soo xamante ne lu koy xamb la koy taal mooy doomu aadama ak xeer kon yàlla wax nañu ana lañ lañu war a moytandikul suñu bopp moytandikuloo ko suñu njaboot loolu mu wax ne ñu moytandiku ko mooy safara tudd na la tax ñu war a moytandiku wax nañ ñu ne lan lañu war a lan lañu wara a fegal suñu bopp wax nañ ñu loolu nu mu tudd moy naaraan safara wax nañ ñu safara suusu la koy xamb la koy taal moo tax mu ne ñu waquuduha annaasu walxijaara la koy xamba di ko taal mooy doomu aadama ak xeer léegi nag yàlla bëgg ñoo wax ne malaaka yuy wattu safara suusu seeni melokaan garde koor ya nekk ci safara suusu seeni melokaan ak seeni dayo ak seeni topp ndigal yu tar nga xamante ne duñu moy dara duñu weddi dara lu dul yàlla lam leen digal dong la ñuy doxal yàlla ne ñoo alayha malaikatun ilaazun shidaad laa yacsuuna allaha maa amarahum wa yafaaluuna maa yu'maruun buur yàlla ne ñu alayha malaikatun ilaazun shidaad safara suusu ña koy wattu di ko garde di ko contrôler ay malaaka la malaaka yoo xamante ne seeni melokaan dafa ñàng seeni melokaan dafa reglu seeni melokaan dafa garaaw kenn musuta gis melokaanu malaaka yooyu kenn musuta gis kenn musul gis ñàng malaaka yooyu ñàng bu malaaka yooyu ñàng amul kenn ku ko mus a gis ñàngaayu malaaka yooyu yàlla nee na kenn musu koo gis seen tar seeni soxor ak seeni melokaan ci tar bu tàng kenn musu koo gis kenn musu koo imaginer subhaanallah mu bugg ñoo wax ne malaaka yooyu dañuy wéy ci ndigal dañuy topp ndigal duñu moy yàlla ci dara moo tax mu ne laa yaasuuna allaha ma amarahum déet malaaka yooyu ñu doon ñay moy yàlla ci yëleen la yàlla digal malaaka yooyu duñu moy yàlla ci dara la leen yàlla digal bu leen yàlla ni xuzu dañ koy jàpp ñu yem ci jàpp bi bu leen yàlla wax ne fa xullu takk leen ko dañ koy takk ñu yem ci takk boobu bu leen yàlla ne summa aljahima salluuh gannaaw si na ngeen ko sànni ci këru safara ba ñu naan jahim loolu la def ah waaw waaw bu leen yàlla wax ne xuduuhu fa gulluuh jàppaleen ko ngeen takk ko tumma aljahima sallu gannaaw si na ko sànni ci safara kër bu ngi naan jahim subhaanallah lu ko waral kii dadi ki fi nekk di topp bànneexu bakkenam dadi ki nga xamante ne day jël dooleem ak ngannaayam di ko nappee nit ñi di nangu la nekk fa ñoom ñii mu gaañ leen tuur seen deret ñii mu rey leen ñooñu ñàkk seen bakken ñii mu xuuxal leen dañ ko jox la ñu yore ci lu dul teyu bakkenam kon kii def lii ëllëg bés pënte lii lañ ko nar a fay waaw waaw ñun la jottali de la nekk ci tex bi lañuy liir di ko jottali bokk auditeurs yi waaye yërëmande yàlla nag ëpp na ku tuub nga sell nga fas yéene bañ a dellu ca la nga nekkoon inna allaha kaana gafuuran rahim yàlla ku bari yërmande la waaye ku bari sutural la ci jaama moo tax buur yàlla ne malaka yooyu seen melokaan bokk na si laa yasuuna allaha ma amarahum déet yooyu ñu doon ñay weddi la leen digal abo ah waawa kon ñoom luy seen melokaan bur yalla ne wa yafaluuna maa yumaruun ñoom de dañoo nekk di jëfi ndigal la yàlla sant dañoo nekk di jëfi ndigal daa iman toujours ñu ngi ci ndigal wan ndigal maa yu'maruun mooy la leen yàlla sant kon yow mi topp waxtaanu fajar fii ci Rewmi FM 97.5 bu fekkente ne dañoo nangoo moytandikul suñu bopp ak suñuy njaboot ci safara bañu ñu yàlla wax ne na ngeen ko moytu te ngeen moytandiku seeni njaboot ñoomit safara soosu na ngeen fegal seen bopp ak seeni njaboot ci safara soosu ak melokaan ya ñu dégg buur yàlla di ko wax ci anamu safara soosu ak ñafa nekk di ko garde seeni melokaan ak seeni taxawaay ci jëfe ndigal yaleen yàlla digal képp ku bugg a fegal sa doom ci li nanga nga jàpp sa loxo doom yóbbu ko ci daara alqur'an yi nga xamante ni fa lay xamee téere yàlla bi di alqur'anul karim fa lay xamee njàngale yenent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee tey ñu andil leen ñaareelu saar ba nga xamante ne ñu ngi leen ko doon wax démb ne tur tànk bi bu ko mokkalee fukki saar ya mujj ci alqur'an démb jàngal nañ leen suuratul fiil mooy alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil incha allah bi iznillahi bi tawfiqihi tey ñu fas yéene leen andil ñaareelu saar bi nga xamante ne muy suratul quraysh mooy lii laa fi quraysh buur yàlla tabaraka mbokk yi si ñaareelu saar ya nekk ci fukki saar yu mujj yi bu yàlla tabaaraka wa taala muy wax yonentu bi ci saar bi audu billahi min alshaytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim li ilaafi quraysh ilaafihim rihlata wa sayf falyacbuduu rabba haadha albayt alladi at'amahum min juuc wa aamanahum min xawf buur yàlla tabaraka wa taala lii la wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne ñaareelu aaya wala ñaareelu saar ci fukki saar yu mujj yi muy suratul Quraysh démb xale bi jàng na suratul fiil tey jàng na suratul Quraysh suba mu jàng ñetteelu saar gannaaw suba mu jàng ñeenteelu saar bu ko jàppee ni amaana bala école di tujji du ñàkk yàlla wërsëgal ko mu war a mun a wattu fukki saar yu mujj yi yan nañu ko yàlla jàppandal moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ñu ne ci maanaa xadis wa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yonent bi daf ñu ne yan na ko bur yàlla yokk xewal ak mucc kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati yéen ñépp mboolem seen sàmm ngeen te kenn ku nekk dinañ ko laaj sàmm yañ ko sàmmloo kullukum raayin yéen ñépp sàmm ngeen wa kullukum yéen ñépp mas'uulun dinañ laaj an raayatihi loolu ngeen doon sàmm wa kullukum yéen ñépp mas'uulun da ngeen yore part de responsabilité an raayatihi loolu ngeen doon sàmm kenn ku nekk sàmm la te kenn ku nekk ci yéen dinañ ka laaj loolu mu doon sàmm ana num ko sàmmee kenn ku nekk ci yéen sàmm la waaye kenn ku nekk dafa am part de responsabilité loolu mu doon sàmm kon nañ leen sàmm njaboot ñi ñu tette leen won leen yoon bi nga xamante ne mooy yoon ba yàlla sopp te mu gërëm ko yonent bi jàngale ko sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne ñu wa rajulu ra'in père de famille wala waay ba yàlla dénk la mu war a sàmm nee na kooku dinañ ko laaj responsabilité bi mu doxal ca la mu doon sàmm mu ne wal mar'atu ra'iya fi bayti zawjiha kii ab soxna la moom it sàmm la ci néegu borom kiram wala ci kir ba ko borom kiram installé nee na kooku tamit dinañ ko laaj ana lan la doon sàmm ci la nga xamante ne moo nekk ci euh, la ko boroom kiram jox kom sàmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñu wa kullukum ra'in yéen ñépp mboolem seen sàmm ngeen te kenn ku nekk ci yéen dinañ ko laaj loolu mu doon sàmm nam ko sàmmee kon su ko ñu xamee ko nii ñu xam ne sàmm dadi la nga xamante ne moom la buur yàlla tabaraka wa ne yéen ñépp sàmm ngeen te kenn ku nekk dinañ ko laaj loolu mu doon sàmm num ko sàmmee su ko defee képp ku bëggu tontu tontu bu méngoog la tax ñu dénk ko loolu muy sàmm kon nañ leen bokk déglu la nga xamante ne mooy la yonent bi wax sallallahu alayhi wa ci njàngaleem yu mucc yi alayhi afdalu salaatu wa aska taslima mbokk yi démb ñu ngi doon waxtaan ak yéen lenn ci melokaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ana wan anam la doon jëflante jamono bi nga xamante ne day waaj a jëfandikoo li nga xamante ne mooy xeetu ñam yako ko buur yàlla wërsëgal démb wax ne buntu bu njëkk mooy da doon raxas ñaari loxoom ngir tilim tilim ya nekk ci loxo bi mu daldi deñ ñaarel bi da ñaan barke ci ñam bi waaye yàlla wërsëgal ko yiw ba nekk ci ñam bi démb ñaar yooyu lañ doon waxtaan ak yéen tey bi iznillahi wa bi tawfiqihi ci kàttanu yàlla ak ci jàppandalaam dinañ leen andil ñetteeli buntu bi ak ñeenteeli buntu bi su ko defee ñu installé ko ci suñu kër nga xamante ne suñu doom dinañ ko jikkoo dinañ ko comporté woo mu doon doxalinu yonent bi mu doon njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñetteelu buntu bi tey mooy a tasmiyatu qabla al akl yonent bi nee na da doon yàlla lu jiitu muy lekk li xadiisu ida akala ahdukum taaman falyaqul bismillahi fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillahi fi awwalihi wa axirihi rawahu tirmizi wa saxahul albani ñetteelu bunt bi yonent bi sallallahu alayhi wa laata mu doon jëfandikoo ñam da doon wax turu yàlla wax bismillah waaw ci xadis ba nga xamante ne yonent bi ida akala ahadukum kenn buy waaja namm jëfandikoo lekk fal yaqul na wax bismillahi maa ngi tàmbale lekk ba may jëfandikoo nii maa koy tàmbali ci turu yàlla mooy bismillah tàmbale naa sama lekk bi ci turu yàlla yonent ne fa in nasiya boo fàttee na nga wax fal yaqul bismillahi fi awwalihi wa axirihi nee na ci njëlbeenu lekk ci commencement bi bu dee danga ngaa fàtte wax bismillah na nga wax bismillahi ci njëlbéen ba ak ci mujjantal ba hadis bi Tirmizi moo ko solo Albani wéral na ko ñeenteelu buntu bi mooy quatrième buntu bi quatrième buntu bi mooy al akalu bi yaddil yumna ngay lekkee sa loxo ndeyjoor kon yonent bi tere na koy lekkee loxo càmmoñam li xadiisi laa yaakulanna ahadukum min shimalihi aw bi shimalihi wala yashrabu biha fa inna cheytaani yaakulu bi shimaalihi wa yashrabu biha rawahu muslim yonentu bi sallallahu alayhi tere na nee na laa yakulanna ahadukum ngalla waay bu kenn musa lekkee ci bi shimaalihi ci loxo càmmoñam waaw wala yashrabu biha bu kenn naanee loxo càmmoñam lu tax yonentu bi ana lan moo waral ñu war a mën a bañ a lekkee suñu loxo càmmoñ lu tax ñu war a bañ a naan suñu loxo càmmoñ yonent bi tontu nañu mu ne ñu fa inna seytaan naka seytaane de seen noon de yaakulu bi shimaalihi càmmoñam lay lekke wa yashrabu biha càmmoñam lay naane rawax muslim muslim moo solo hadis bi kon ñu déggee ci ne yow xale bi wala yow julit bi nañu bokk topp ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu musa lekkee suñu loxo càmmoñ loxo gauche bu ko kenn musa lekkee bu ko kenn di dinaane ndax yonent bi nee na seytaane loxo gauche lay lekkee loxo gauche lay naane kon képp kuy lekkee loxo gauche loxo càmmoñ yaa ngi roy seytaane te yaa ngi dooleel te seytaane képp ku koy roy di ko dooleel ci yow lay njëkk padd yow lay njëkk nasaxal doo musa bëgg la yàlla santaane doo mës a bëgg lu yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam kon jàngale yonent bi mooy ñàkk ak loxo càmmoñ mooy loxo gauche njàngale yonent bi mooy ñàkk naan ak loxo càmmoñ mooy loxo gauche njàngale seytaane nag mooy lekkee gauche naane gauche lekkee càmmoñ naanee càmmoñ loolu mooy njàngale seytaane njàngale yonent bi mooy lekkee droite mooy loxo ndeyjoor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 aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum min kulli zambin fastaghfiruh innahu huwa ghafuru rahim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu